bismillahi rahmaani rahim ah, lii njariñ la dane ko wax ci diggante tisbaar ak takkusaan bu ne ci weeru nday koor mooy rajab moom lañ génn ak weeru baraxlu wi mooy weeru chaabaan bi ñu nekk fi mu ne ak weeru yi ñëw bi bëgg a ñëw ci topp mooy weeru ramadan diggante tisbaar ak takkusaan boo ci waxee astaghfirullah al azim alladi laa ilaaha illaa huwa alxayyul qayyuum wa atuubu ilayhi tawbata abdin zaalimin laa yamliku li nafsihi darran wala nafxan wala mawtan wala xayaatan wala nushura loolu boo ko waxee ci diggante tisbaar ak takkusaan ci yetti weer yi ma wax yàlla day wax yéen samay malaaka lakk leen ay jëfam yu ñaw maanaam boo ko waxee yàlla di digal malaaka yi ne sama jaam bii wax li lakk leen téere jëfam yu ñaaw loolu mooy njëgalu yàlla kon ñaan gu neex a def la ko xam ne bariwut yomb naa def te bari na ngëneel tax njëgalu yàlla moom ci la lépp xaj